Euh, ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy sant euh, bu baax professeur Iba Der Thiam euh, parce que professeur Iba Der Thiam fa tabarkalla ñëwoon nañu fii ay jamono di ko laaj di ko ne histoire Sénégal bu ngeen di bind fan ngeen si toll ak ñun naka lañ siy gis suñu bopp mu gërëm ñu sant mu wax ñu sax ne ah lii de mënoon ngeen dem sa télé ay rajo ngeen wax waaye defu leen loolu ngeen ñëw ngeen dox ba fii ñëw di ma laaj di xam naka la mu ne ma loolu bettuma parce que yéen waa ahli rasuul rasul ngeen waaw kon li ngeen def nii maa ngi koy si maa ngi leen si sant di leen gërëm ñu ne nag loolu du suñu coobare ñun waaye suñu kilifa yi ñoo ñu yónni donc kilifa yi ne ñu ñëw euh, nga wax ñu naka la ñu war a def mu euh, dalal ñu waxtaan ak ñun jox ñu éléments yëpp wax ñu fu ñu war a jaar euh, fa tabarakallah si lañ dem depuis boobu mat na deux wala trois mois euh, ñu wër nag euh, sous région bi parce que sunu ñun sunu njaboot ak sunu histoire mun naa ne sous sous région bi yëpp la laal euh, li ñu am si ay documents ñu dajale ko si documents yi nag am na yu bëri yoo xam ne source bi bind Chérif ay dara la jatoo bu daaru xayri waaye am na ay doomam ak ay do ak ay ay doomam tamit ñoo xam ne ak ay sëttam ñoo xam bind nañ tamit moom histoire am moom Chérif Samsidine histoire Cheikh na Cheikh Mahfouz moo fa nekk waaye histoire Casamance moo fa nekk histoire islamisation euh, nu mu duggee Sénégal ak euh, gox yooyu Gambie Guinée saaw yooyu moo nekk si si livre yi donc euh, ñu bind tamit tabarkalla naka la peuple yi di war a nekk benn parce que loolu nekkoon na ay message am ba mu ñëwee nekk si ay joola ak ay balant di leen wax ah fa tabarkalla fekke ñoom nag ñu bëri dañ meroon dañu amoon lu leen naxari parce que jamono yooyu ay xeex la tubaab bi moo doon def lu ko neex lu mu dem lu demee noonu euh, mu leen di dalal dalal seen xel pour wax leen ne nañu jàpp diine nañu dugg ci islaam te diine bi nag lu mu laaj mooy nga jaamu sa borom nga ragal sa borom waaye nga nga nga fexe euh, ragal tamit ak doomu aadama maanaam surtout li ñuy wax dëkkandoo ak dëkkandoo parce que ñii ay joolaa ñi ay balante ñii ay leen ak leneen donc il faut ñu fexe bon voisinage bi ñu cultiver ko yooyu bokk yëpp bokk na si ay messages yoo xam ne mu ngi ko doon véhiculer pour euh, waa Casamance te fatabarkalla sunu papa bu baax bi bind na sa géographie Casamance maanaam pour dëkk yu ndaw yi yëpp ak yoon parce que jamono yooyu yoon yi bëriwuloon donc euh, mun nañ ne yoonu àll la ñuy jël mais dëkk yi fa nekkoon yëpp fexe na ba def cartographie Casamance pour boo xoolee rek nga mën a xam ne ah kon dëkk bi fii la situé euh, dalal na sax crise bi bissau bu mu amee ay balante 1974 ay balante yoo xam ne du ñu ay jullit moom njëkk na dalal ay ñoo xam ne bokkuñ bokkul ak ñoom diine mu dalal leen ay dëkkam loolu rek pour montrer yeneen dëkkandoor yi euh, valeur solidarité ak valeur tolérance boo xam ne islam loolu la woote Euh, fa tabarkalla ñëw nañu jox nañ professeur Iba Der Thiam euh, une partie euh, document yi mu des beneen partie boo xam ne ak yeneen ak yeneen waaye li nga xam ne xëy na incha allah dina ñëw du du yàgg mooy sunu rôle rôle famille chérifienne boo xam ne joué na ko Casamance si jamono bi nga xam ne fitna muy woon Casamance loolu role bi du leneen lu dul talal sunu loxo di wàccee ay kaamil yu bëri di ñaan yàlla mu may ñu jàmm di woo sax sunu dëkkandoor yi di leen wax ne toog leen ngeen jaamu yàlla toog leen ngeen ñaan yàlla lépp lu doomu aadama soxla muy bànneex wala leen beneen soxla rek yàlla rek mooy maye yàlla rek mooy buur kon jarul jël fetal jarul xulo jarul leneen nañ ñaan yàlla donc exemple bi dem na sax ba mu am ñuy ne comme affaire bi parce que bu crise bi demee ba tàng ñu bëri dañ doon daw ñii di dem Bissau Guinée Bissau ñii di dem Gambie ñi tuxu complètement même sunu mbokk Saalum Saalum yi ñu bëri ñu dekkoon Casamance jaay nañ seen kër yi ñu dem dañuy am réflexe nekk comme famille chérifienne ñoom ñuy toog ñuy daaru xayri ñuy daar salaam ñuy mahmoudan ñuy binaako ñoom demuñu fenn kon loolu rek war na mun a nekk assurance kon en plus de lu ñu doon def si prières yi waaye suñu présence rek sax stabiliser na xol yi en tout cas delloo na gëm yàlla si xol yi fatabarkala dañ ñëwaat si euh, professeur pour euh, jox ko document yooyu nga xam ne sunu papa yi liggéey nañ ko ak euh, sunu mag yi liggéey nañ ko pour la stabilité et la paix en Casamance mais aussi pour euh, toute la Oumma islamique